salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa adduna gaay ñu ñëw ci beneen chronique euh, beneen artiste mu Jeeba ginnaaw bu ñu ci Balla Gaye ak Boy Niang bi ñuy encouragé Balla Gaye di félicité Boy Niang gars yi Jeeba lañu am tey quoi dama leen bàyyi ngeen déglu ko son bu bees bi deux jours yi donc euh, son bi naa na trop vidéo bi xam ku ko def def naa kii la euh, waa Reverse Studio def naa ñoo ko def that's nice ñoom dañuy uh, dañuy innover quoi à chaque fois di créer donc gis nañ ne vidéographie yi nekk Sénégal ñu ngi improve quoi ci côté ci lépp côté bépp donc mais gars yi euh, boo leen xoolee jéeba ah man euh, avant ma teg son dama leen wax sama xalaat personnel parce que dañu chronique ak impression après critique doogu ñëw su leen neexee. Euh, impression bu ma njëkk am mooy Jeeba boo xoolee que même flow lay utiliser même flow même flow lay aay na trop te mën na way donc pour mu pour pour pour nit ñi enlacé wu ci moom dina yomb trop mooy maam style musical am amul changement quoi pour man maam boo teg rek da ngay boo nee teg rek da la. la lay way day tek mbalax ci xam euh, way après mbalax bu baral wax ji donc euh, mu style musical bo xamné ne bonk euh, demande sénégalais ñoko mëna déglu li ma ci pour Sénégal waye ndax pour international lolu moy sama impression bu njëkk ma bàyyi la ngeen déglu musique bi ñu dem ba ci kanam ma ñëw ci euh, chronique bi dëgg après ñëw ci euh, critique yi yéene joxoñ may dag am am bu sawantaawan soona aduna dootuma tere nelaw mbaa ku may gis champion may gis champion man bëri na wallahi na man bëri na bëri na training daanu I'm training na I'm training now هاجيز السما معي دخل بينك فاتلي كل ديمون ومتون ورا المخاليون بقدون شامبيون نينا منو كودف نينا منو تباخ سالو لي جينغب يانو واجر موي سمال دولي أدون كبال وخلدو ما تيري ديف خرينا بنيا بنانغو ماي مودو تشبير جيو ويا لباخنا هي لباخنا مسلمان جيسا ماي بخنون

ak son yi mboy yëpp amul différence saay kenn weddiwul ne ay na maam style inde boobu mën na mën na tamit na teg ko ci mbalax bi loolu moom nice mais li ma doon wax sànq rek Sénégal lay yem encore une fois de plus ba pare deux Jeeba musicalement pour man avancer woo quoi man jeebaa bi ma xamoon deux ans ci ginnaaw ah ba léegi même jeebaa bi la même jeebaa lay dégg chaque fois ak même ton musical bi ak même voix bi maanaam y a pas de recherche musicale approfondie sur la musique de jeebaa jëlal albumu jeebaa wala nga jël sonu jeebaa yi nga teg leen amul différence fond musical bi c'est la même chose lii critique la chronique bi mooy jeebaa euh, kenn weddiwul ne mën nga woy kenn weddiwul ne ni nga tegu ci bit bi nice kenn weddiwul ne am nga aisance ci musique ci way loolu moom ñëpp xam nañ ko mais est-ce que ñeme nga dem ci benn yeneen univers musical yi nga xam ne tey jii ni c'est plus international gars yi dama koy wax sànq ba léegi euh, korok ba léegi mais gars naa moom luy international ci commentaire naan ay ay ñu Sénégal la ñuy dund déedéet mais jeebaa ñaan na yàlla am ay kër ñaan na yàlla am ay oto ñaan na yàlla di tukki ci àdduna bi mais jeebaa ba mu commencé génn musique mi ba léegi fan la mos tukki en dehors du ñu ne jeebaa mi ngi Amérique day def tournée wala jeebaa mi ngi France day def tournée jeebaa mi ngi Chine wala mi ngi Japon wala affaire yooyu mi ngi Asie doon leen ko mos a dégg gis nga nit boo nanguwut dégg dëgg doo sori té deug la leen di wax musique bi ni Jeeba di def Sénégal la yem néxna trop nak dama koy déglu di ko bége waaye du li mo yóbbu musique Sénégal fu sori du du li ñen bal ma nag ci wax ji dé parce que Sénégal mo daan dafa nakaré def chronique ak ak critique ñom dañuy jaawale ki liggéey di wax xalaatam en tant que chroniqueur ak ki nga xamné day xas xassewuma c'est juste être euh, logique si si sama langue euh, li li maanaam style chronique bu may def damay damay honnête mais su ma ñëwee dinaa leen lii rafet na neex na loolu moom bàyyi ma fi te bàyyi fi musique Sénégal bi li koy doxal la ñuy wax jeebaa c'est un talent ñëpp xam nañ ne dafa aay mais daf am dafa dafa gis aisance ci ci musique bi bëgg faa fanaan te bu yàggee day sàppi nit ñi dañu waxante dëgg xam nga style bi muy def nii ñëpp xam nañu maitriser na ko mais na na na jéem a avancer dem beneen niveau mais gis na aisance rek bu ko faa ràcc ah tamit saa yi nañ waxante dëgg musique nekkul rëm dëm bi tam rek rëm dëm bi tam mais da foofu neex na mais bu yàggee da leen di sàppi jeebaa fii nga ko jàpp neex na lool mais bu yàggee day sàppi nit ñi waaw parce que da ngaa ja mono da nga monotone quoi ci sa musique xam nga même même son même sonorité bi la même tonation bi la même même ton bi ngay woyee même mélodie yi ngay indiwaat xam nga boo ko boo ko dugalee fële bu yàggee nga indaat ko fee. Uh, da ngay mujjee da ngay enlacé wu quoi da nga ah jéebaa la ay ah, jéebaa la ma bàyyi la ngeen déglu mi li ci des après ñu ñëwaat ci li ci des baku rek may gis champion nga fees baku rek may gis champion dëkk nga fees sky the limit on a plus rien à prouver mbal ba tàkk na biddew bu jógee asamaan kuy wax bokkul ak kiy jëf man damay bëre taan doole keneen njaay dama déggal ndeysaan xamee naa janjog ak joor xamee càmmee nday joor toj na la mën na kaaru ces kaay jàpp sikki coor gaay waay man bëre daan lay gis gëm-gëm bi dootul dañ ba abadan daay man sàkku na ñaan ku faral ji ba ne ko yaa man waaye la baax na ci samay pexe ndoon bay sama ma mën agale bi ci man tax champion lay ma sa doon na tey ma màgg bëri daan got may ma ndaam teere joxoñ may dag am am bu sawan daawan teere Va rek may champion nga fees rek may Open your dick and get face Konjo na tema maga Fute kubere God may man down to my tere now You need your home my am ambo bawan Chona aduna No to my tere Bakurek may guess Champion get face Bakurek may Champion face gars euh, gis ngeen bo le xoolee vidéographe bi dama doon wax sànq ci ben bi euh woné na pour woné né vidéographe bu ay hein ah, yi mo waxon ci vidéographe bu ngaaka bi gay di mer euh, man len essayer na quoi xawma na même personne bi la wala du mom mais fofu non bu bu vidéo ngaaka bi dafa brouillon won fofu quoi mais bo xoolee wa Reverse fini nii xawma ndax def defu ngaaka bi mais fini c'est plus Euh, dafa naturel quoi xam am na trop de am na ay images yu wane mais dafa nga transition yi dafa baax ba pare c'est bien posé quoi maanaam maanaam fond vidéographe ci ginnaaw c'est bien fait boo xool costume yu sol xam nga euh, positionnement yi xam nga yëre yi yooyu yëpp euh, ak taxawaay yi xoolaay bi yëpp c'est bien fait xam ma kan la nag mu ko créé vidéographe bi mais am na am na talent quoi pour dire vrai ñu delluwaat ci Jeeba gars xam ngeen am na benn booy bu génn fan yi ki ñuy wax euh, VG euh, pour man Jeeba ak fi mu toll ci musique sénégalaise bi nga xam ne génne na ay son yoo xam ne ay hit la hit di dem gi Jeeba parce que lu mu génne Sénégal hit la pour dire vrai moo tax li ma wax sànq dafa mën a way maîtriser le style musical bu je def mooy bii Je je def nii mbalax trap lay genre mbalax trap sous forme de R&B mix le quoi mais c'est propre à lui mais si vous euh, bu bi ak quoi mais qui est à l'aise parce que je suis chantonné donc euh, je vais à l'aise Quand je maîtriser nañ def concert public les concert public mo wara def dimbali mu egg niveau mais djeba bok peut-être au Sénégal ñu def concert euh, esplanade euh, grand théâtre wala euh, stade que Job wala stade amitié wala fu stade mu na Sénégal ndax ay ko maîtriser lan ngay xaar lan ngay ragal lan ngay ragal Jeeba boy bi génn fani yi vigi fit la la ëpp ñaari son la génn nit ñi maîtriser ko ñu bari sax xamuñu ko mu am fitu tek podium so bëggee avancer ci ci ci li ngay def Sénégal internationalement ma waxuma ko parce que gis guma benn son boo def boo xam ne tey ni nii naa ne li internationalement mun a compi mun a comp euh, compete mooy euh, mun a xeexanteel ak ak yeneen son yi nekk ci biti gisaguma ko man mun naa am nag ndax déglu guma sa son yëpp waaye bu dee Sénégal la gisuma koo xam ne tey jii mën na la fa képp ko fay concert muy Waly Seck muy Pape juuf muy Vigi muy képp ku fa nekk li ñuy def teg seen podium yow war nga ko mën a def foog nga nangoo génne xaalis nag def ko pour que nga mën nga mën am beneen niveau euh, bu gën a bu gën a élevé nga nekk nii parce que mënoo dëkk rek dañu bëgg a rey ci YouTube bi di dugal di ñu dugal ay son ba pare te doo teg te doo teg podium mënut a nekk foo nga teg concert bu mag woo nit ñi ñu wuy si la parce que toll nga foofu xaw ma ku lay manager mais itam manage mal léegi yow da ngay continuer di génne ay musique ay son xam nga di génne ay album sur album wala ay EP euh, euh, e wala noo ko mën a koolee xam nga noo ko mën a woowee ba ba mujjee sàppi nit ñi wala nga mujjee fay te doo jariñu sa musique amul sens da ngay am fit tax sa fit teg plat podium bu mag te bàyyi su euh, plateforme yi baax na nit ñi xam nañ la ba pare nit ñi say woy maîtriser nañ ko li ci des mooy tegal podium jeebaa tegal concert bu mag def entrée bi entrée normale cinq mille cinq mille wala deux mille deux mille yaa xam noo koy defee nit ñi dañuy ñëwee ñëw wuy si la parce que nit ñi bëgg nañ la na xam nañ sa musique xamul lu tax Sénégal ñoom ñi manager dañ ñi nelaw xaw ma Sénégal nga gis kenn jóge fee rek ba mu nekk mu ne moom manager la quoi maanaam du ko jàng xamul nit ñuy manager artiste xamul lan la war a def bu artiste génne album xamul na lay def pour promouvoir album bi xamul lay def pour def distribution album bi xamul na lay tegee ci kaw mekk euh, artiste mu dund ci aaram ba musique bu mu génnee album yi mu génnee mën a mën koo dundal moom artiste bi mais day day génne album art manager bi jógee fee naan ay jàngul parce que daa yàgg ci musique rek wala muy nekk melomaan dëgër fit rek ne ma manager la ñu bàyyi ko mu ndikki tamit naan kii moomay manager artistes yu bëri Sénégal bu ñu dee seen manager yee rey parce que xamuñu nu ñu leen manager ñoom pour ñu artiste bi na dem ci ngénte yi wala ci ci concert école yi loolu loolu du artiste loolu waa Sénégal la ñoo koy def dama ne sawaay da ngeen teg ay plateau yu leer bu dee yéen seen euh, amoo leen plateforme digitale euh, bu buy tax ngeen mën a euh, dund ci seen musique ngeen am ay royalties créer leen seeni concert bopp comme ni ko mbalax maa ni di defee mënuñu leen jeeba loolu moo doon sama critique bi nga xam ne tey jii ne naa leen ko raxoon naa leen ko mujjee ma bàyyi la ñu eggali musique bi après ñu tëj kon ba beneen chronique la ak jeeba inscrire len euh cher len affaire bi mu tass commenter len wax len sen xalat té and ak respect quoi parce que li ligué lo té juste dañu bëgg musique Sénégal dem ci kanam loolu lañ ci djublu djublu ci pour xasté mbaa ñuy tuumaal mbaa ñuy toroxal mbaa ñuy jéem a ben artiste dañuy wax suñu chronique bop ñu ko sentiree rek sans sans manquer de respect à qui que ce soit artistes c'est des artistes yi nga xamné dañu am talent mais suñu critique ni ñu ko gisee pour li di xol musique Sénégal new ñu li ñu wax moo baax wala li ñu wax lañu war a def mais suñu xalaat la rek ngeen xamee ko noonu jërë ngeen jëf ba beneen yoon